waaye gis ba neexoon na waaye mag moom ku ko def cër yi nga yor yëpp dañuy màggataale na jëm ji màggate loola tax bët yi tam màggataale na ba gis ba neexatul léeg-léeg tam ngay gis koo xam ne ma ngay jàng di ko xool àggut ci màggat ndaw la waaye gis ba naqari na kon lañ waxoon mooy suñ borom moom boo defee sabab bi sabab bala ngaa am lañ la ku ko def am ko day fekk coobareem ànd ci kon kooka sabab bay tee ab gis naqari mooy jàngal xaat di ko xool ci kawil def na ko waaye coobare suñu moo ci àndul ndax bu ca àndoon kon ab gisam du naqari da xam ne lépp lu am daal buñ la nangam ku ko def am nangam boo ko defee amoo ko tam bul yedd kala newoon ku def nangam am nangam da ngay xam ne def nga ko waaye coobare yàlla moo ci àndul moo tax waa joojee di jàng di ko xool ba noppi ab gisam di naqari mu ne mu xafifan mbir mu muy aji woyefal xan waaldi wulif ñaari waay juróom fin xasaat ci mbugal ga wala naan donte dañoo nekk ñoom ñaar fin tisaabin ci askanu li silki ñeel ak mbokkaale ki nga xam ne day jàng alxuraan di ko xool itam ñaari waay juróom donte ay yéefar lañ nekk ci mbugal itam suñ borom mbugal ga nu mu mën a demee def na ko woyefal bu mu gën a sedd ci ñoom ngir seen doom ji nga xam ne ab julit la te ma ngay jàngal xuraan di ko xool xool googee kon ñoom ñoo ñi di yéefar dana baax ci ñoom ndax danañ ci woyefal seenu mbugal mu ne wag tamaxat dajaloo na yebun fukk ak ñaar mina sax bi ci saxaaba yi xalaa tafdili ci gënal ko moom jàng ci kaamil di ko xool xalaa kasiirin ci njàng mu di aji bari xumi la moom defeef na ko am na fukki saxaaba ak ñaar yoo xam daal daje nañ ci ne jàng alxuraan lu baree baree bari te xooloo ko ci kaamil ndax da koy tari jàng ci ab kaamil xool ko te muy tuuti moo ko ëpp ab yoon wa baadum lenn ci ñoom xàllalewoo layal na ko bil ni ca nekk ga asxala di gën a soxlaal li lisaani ñen làmmiñ yi wala ay nee ni ak ñaari bët ya wa bii ak xolam wayet yi ak loxoom wal xijiri ak penk ba maata dabburil mahaan yi ànd ak seetantal maanaaya fadri xamal ñenn ñi dañu sax jàng ci kaamil di ko xool li mu gën a tari te xooloo ko niñ ko layale mooy soo dee jàng di ko xool cër yu bari dañ cay participer ndax day occuper làmmiñ wi moom làmmiñ wi moom boo taree ak boo ko dee xool lépp moom da koy soxlaal ñaari bët yi itam dana xool ba du xool feneen xool bi ci boppam dangay xalaat li ngay jàng loxo bi yor jukki bi wala bu dee alliw penk bi nga xam ne ci ngay teg alliw ji wala ci ngay teg téere bi boole koog di seetantal maanaa yi kon loola la ëppalee jàng te xooloo ko kon loolu moo tax ñu ne kon jàng di ko xool moo ëpp bu yool jàng te xooloo ko ndax am na xeeti settantal yoon soo ko bëggee def fokk léeg-léeg dangay baamuwaat aay bi te léegi soo ko gisul ci téere doo ko mën a baamuwaat wala dangay ngay daal di runge waaye pentakul ñeem dana nekk xan sahabi xal bin cib tari moom njàng ma ak ma di gën a dajale lil xal bi ñeel xol ba maa tadabburil maana ànd ak settantal maanaa ma maan boole seen minal xiraat ci jàng nasar ci xool bi musnafin ci kaamil ah fay naa naka moom kat te fuuxaa dana ko kawe kama saxaar ni mu feeñe li am solo daal moo xam da koy tari moo xam da nga koy xool ci kaamil mooy def ca sam xel teewlu ko tey seetantal maanaam su fekkee nag kii moom bu dee tari ci léegi ma mën a seetantale maanaam yi ci la ci mën a gën a defee xelam loola kon day daal di gën ci moom jàng di ko xool ci kaamil kon daal li nga xam ne moo tax ñuy wax mooy seetantal ak def ci sam xel su fekkee booy tari nga koy gën a man ci boo ko dee xool kon tari day daal di ëpp yool ci yow xool nee nañ daal fa adamu xool ku la yow bépp bis fii mu safin cib kaamil ku rixa si béef na ko hindal xaw mi fa nit gaañu baax ña is ngir nasaratun ak xool waaye dut bu di benn fi mu safi cib kaamil toxaat du def na ko lim xurbatan mu di jaamu bi xaw li salaf ci waxi dawal ba nee daal xëy ba jant bi so ubbi ab kaamil xool ko gaa ñu baax ñoom dañ koo sib ndax nañu xool ab kaamil donte jàngoo sax ak jaamu yàlla la kon nag soo ca boolee jàng def nga ñaari jaamu yàlla kon kay tari te xool ci kaamil ba boo jàngee ni moom te xool ci kaamil njàng ma bokk ngeen yool ba am nga yool bu mu amut mu yoolu xool ci kaamil te mu xool ci kaamil moo tax gaa ñu baax ñi daal sib nañ xëy ba jant bi su te ubbi ab kaamil xool ko waxtara fa wuuti nañ xal ndax afdalu la gën ak tartiil mooy diibal njàng ma aw xaq soo wala safaan ba dangay ngay gaane ratatat rek mu jeex ñi ne diibal gi moo gën ñi ne ratatat ji mu jeex moo gën waaye kulun képp lëxoo ci ñi wax lii wala lee lëxoo ñeel na ko dalilun ab tegtal kenn ku ne am na foo tegtaloo ba tax nga ne njàng mu bare gën ñii ne njàng mu diiba gën ndax warattilil qur'aana tartiilan jalaa feeñ na dalila tartili di tegtal diibal li man ñeel ka xam ne xat paddala gënal na ko ñu ne jàngal alxuraan di ko diibal alxuraan suñu borom ba muy wax ak yéen dama ko ne rattilil qur'aana booy jàngal ko diibal ko ba xam la ci sa borom digal ak lim la ci tere kon aaya boobu tegtal la ne kon jàng alxuraan diibal ko moo gën waaye wal amru digle bi sikri ci sikkar alkasir buri aji bari ba aay al ba aaya ba jeex dalilu hak si mooy safaanu mooy tekkalu safaan ba iqtafi xencul arriwaay nett li ba waaye alquran daf ne yaa naa lazina aamanu uzkurullaaha zikran kasiiran wa sabbihuuhu bukratan wa asiilan yéen ñi gëm di leen tudd yàlla lu baree baree bari ñooñu kon foofu lañu tegtalu ne xëy jàng alquran lu baree bari moo gën jàng mu tuuti te diib ndax mu diibee rek bari te alquran daf tudd leen yàlla lu bari kon ñooñu foofu lañ tegtaloo ne kon njàng mu bar bari moo gën njàng mu diib te bariwul ay kenn ku ne am na tegtal laakin waaye imaadul amri sukkandikukaayu mbir mi daal wal ak jublu ga al ajalu ga gën a màgg xuma ñoom ñaar mooy tadabburu seetantal ak tafaxumun dégg-dégg lu ajal waaw waaye daal na nga xam ne li am solo moo xam dangay diibal moo xam dangay ngay loo ci mën di daal la ci am solo mooy settantal ga ak jëm a dégg-dégglu li ñuy wax ci alxuraan bu dee ndigal nga fas yéene koo jëfe bu dee tere nga fas yéene koo bàyyi loola mën naa am ci baral su fekkee ci baral nga koy mane kon baralal su fekkee ci diibal nga koy mane kon diibalal ndax yaar yooyu doo nga ci am solo fa tafaxoo dëppoon nañ turam boole seen ala kaw ni ma ci nekk seen ñoom ñaar sunnata xayril xalxi di sunna su ngeen ji mbindéef kon nag laa tan soo maa leen fàtte ñoom ñaar borom xam-xam yépp dëppoo na ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam bu daan jàng alxuraan da koy seetantal di ko dégg-dégglu ngir mu mën caa génne ay njariñ luñ ko ca digal mu def ko luñ ko ca tere mu bàyyi ko kon nag loo man di def xaw ma da ngay baral wala da diibal waaye bul fàtte tadabbur ak tafahum mu ne wa abdalu naasi ki gën ci nit ñi allati mooy ka nga xam ne taallama xamlu na quraan rabbi alxuraani boroomam wa allamatem xamal ko xayran keneen nit ñi daal bu ñuy seet ki ci gën mooy koo xam ne dafa jàng alxuraan xam la muy digle ak la muy tere muy jëfe ndigal ya di tere bàyyi ya ba di ko jàngal ñeneen ngir ñu def ni moom kooku mooy ki gën ci nit ñi mu ngi jàng alxuraan di jëfe ndigal yi di bàyyi tere di ko jàngal keneen di ko jàngalaale muy jëfe ndigal di bàyyi tere kooku mooy ki gën ci nit ñi waaye sunaa sunu mokkal alquraana mimma bokk na ci la nga xam juxi la defeef na ko farda kifaayati muy faratay ak doy xalaamaa ca la nga xam ne nuqi la toxaleef na ko xal su yàqu su mu taxawee bii ci moom xaw mun aw nit yaxsulu dana am bii ci ñoom tawaaturun ak toftaloo xay su ay lim ci jublu ak tasalsul ak càllalawu nee daal jàng alxuraan di ko mokkal moom du caagin ñëpp ko man fardu kifaaya la fardu kifaaya nag mooy loo xam ne bu ko ñii defee mu wàcc ñi ci def ñëpp waaye bu ko ñëpp maasee bàyyi ñëpp daal di am bakkaar kon daal fokk daal jamono ji toujours bu fekkee am na ñoo xam ne mokkal nañ alxuraan te mokkal alxuraan nga di lu toftaloo ndax dañ naa diw diw ko jàngal diw diw ko jàngal féeg mi ngi am ci jamono mbooloo mépp du ñu am bàkkaar ci ñàkk a mokkal alxuraan waaye bu ñu demee ba ñu mokkal alxuraan ñoo xam ne diw diw ko jàngal diw diw ko jàngal amatul ci jamono jullit yépp dañuy maase am bàkkaar in lam yàqum njéem taxawul bi dar sii ci jàngale ko xaasal xadat bi nu lim asima day bàkkaaru kullul xaw mi képp ci nit ñi wala in lam yàqum njéem taxawul bi dar sii ci jàng ko xaasal xadat bi nu lim asima day bàkkaaru kullul xaw mi képp ci nit ñi laasim kon taxool ak arrasat njugg kon daal mbooloo moomu nga xam ne ñooy saxoo jàng alxuraan suñ daal di fekkee ñee kenn jàngatu ko ci ñëpp maase gàddaay alxuraan kenn jàngatu ko ñëpp dañuy maase am bàkkaar waaye su amee ñoo xam ne ñoom seen liggéey mooy jàngal xuraan ni ki kay kaamil yi ñu saxal kon ña nga yóbbaale mbooloo ma nga xam ne jàngul alxuraan ci ñàkki bàkkaar néew ma nag seen jàng alxuraan googee dañ cee yóbbaale di leen ci bi yool dañ leen di tee am bàkkaar seenu jàng alxuraan moom duñ leen ci yóbbaale leen jox bu yool yool ba moom ñoom dong ñoo koy moom moo jàngale ko kasaa ni ki ñii la demee jàngale alxuraan tam fardu kifaaya la du ceegi ni ñëpp dañuy maas di jàngale alxuraan waaye bu ñuy dee jàngale alxuraan rek day daal di ñi ci des wa in donte bi ujjinatin ci pay la alxuraan moom bonte da koy jàngale ñu di la fay itam dagan moo tax mu ne jaww saa dagal na ko daganal na ko imaamu daaril hijrati ilimaani këru gàddaay ga këru gàddaay ga mooy madinatu munawara ka fa nekkoon ilimaan mooy imaam malik ibnu anas radiallahu anhu nee na daal dagan na ngay jàngale alxuraan ñu di la fay li xaw lii ngir waxam sallaa yàlla doolu xewal allahu yàlla xale ci moom wal aali ak ñuñ ña wa ak saaba ya wa man akoon salaaw topp na ko yonent bi daf ne woon fa xayru maa ji loo xam ne ittaxasum jàpp ngeen xale ci moom ajaran ak pay kitaabu laay mooy téere bi yàlla ba bi tan bi ànd ak yeete lépp lu ngeen di liggéeyee daal ñu di leen ca fay jàngale alxuraan di fayu moo ko gën wa fi an yadiha ngir ragal mu sànku sikurul eh, turu yàlla bi hadamil iqra ci ñàkk jàngale ga wa tartiil ak diibal ga nga xam daal dañ koy jàngale ngir bañ alxuraan sànku ba kenn du ko mën jàngale loo tax ñu koy jàngale di fayu mu ne waxtaan rafet lu nañ taq bi wanaa sunu fóon lil mu safi ñeel ab kaamil kal wala ni ki fóon doom asaxiir ju di aji ndaw nat ban ngir sopp foxta fi xencul rafetlu nañ daal nga fopp ab kaamil di ko fóon ngir wane noo ko bëggee ni nga xamee sa doom ji ndaw jooju itam nga di ko fóon wane noo ko bëggee ni ko soppee lañ soppee kuy fóon kaamil wane noo ko bëggee wajaalu ak defam ay dan ba tey alaa ci kaw ab toogu loolu tam sopp nañ alxuraan nga wut loo koy teg te bañ ko teg ci suuf tat yi boo gëttal ko kasaak ni ki yaa oxoy yow sama mbokk ni ki foo tollu di ko laal laj ko nañ loolu tam luñ sopp la laakin waaye jaxloo def ko wisaadata muy ngeganaay mu ne tereef na ko leenoo ngir naka moom muharramun lu ñu araamal la falta tarix na nga sàmm waaye fopp lu mel ni ab kaamil di ko geganoo wala ngay toog ca kawam loola moom dafa araam sàmmoonteel sa digganteeg sa borom ba bu ko def aw sa sayin wala def lëf fooxoo ci kawam min ko tuddi hin min ci téere xam-xam wala kaamil dara waru ko féete kaw boo tegalee téere yi fabal kaamil bu mu féete kaw waaye bul teg kaamil bi ci suuf foofu téere teg ca kaw kasaani ki nii tasxiiluhoo diisal ko bil xusu bi ci ay bant foofu lu mel ni ab kaamil foofu ay bant teg ko ca wala lu mel ni ab jukki su fekkee soo ko ci tegut mu naaw kooka may nañ la ko waaye su fekkee mën ngaa wut def ko noo xam ne du naaw nga bàyyi noonu dañu ko tegi bant boobee lañ la ko tere waaye su fekkee teg bant doon nga fi sës kooku jéggal nañ la ko aw xayriha wala dul ci bant wa maddu rijlayni ak tàllal ñaari tànk loo jëmee ko ci kaamil ni ki nga teg kaamil sa kaam tàllal sa ñaari tànk jëmale ca ndax loolu xam nga duy teggin ndax doom aadama joo wormaal dong bu nekkoon sa wet da sukk te lu doom aadama ja tedd tedd wax yàlla ko gën a tedd ginnaaw doo tàllal ay tànk ci kanamam kon warul koo tàllal ci kanam ab kaamil kafaa ni ki nii taxaluqun wékkoo ko fa jaanib teetal ku loo léppam lu mel ni nga yur mu mag a def ci kaamil di ko gàddu foo toll di dem ndax xam nga loola tegtaliwut ak wormal kon ak yooyu yëpp na ko wattandiku mu ne wana da bu sopp nañ taxsiina xattil mushafi rafetal mbindub kaamil ba waxaak saa nit nii tabiinuhoo biral ko yëf yi dana dikk nat bu ndi somp sopp nañ booy bind ab kaamil nga rafetal mbind ma te bind ko mbind mu leer naññ moo xam ne ku ko tiim man koo jàng ndax mag ñi dañ daan wax mën bind bind lu ñu xam waaye mbind moom da nga koo jalgatee jalgate fu ne nga sànni faw araf ba ku ñëw jàng ko dalay jaaxal loola sit nañ ko ci mbindum kaamil waxaaka saa niki nii ak tasxiixu wéral ga bi tax xeexi ci dëggal min xëy di tax lii ci lu dul jaxase wala tar xëy xin lu ak sewal ni ki noonu tam sopp nañ soo bindee kaamil ba noppi ñu toppaat ko ba mu wir ba benn yàq du ca nekk bañ a jaxase baat ya bañ ko mbind mbind mu sew moo xam ne bala nga koo jàng da nga ca sopp sonn lool kon daal da nga koy bind mbind mu wir te toppaat ko te bañ koo jaxase wakkarihon sib nañ waraxatan aw këyit saxiiratan wu di aji tuuti xasiiratan wu di aji gàtt yukkutab def na bind fii ci moom musaafun ab kaamil sib nañ tam kuy bindub kaamil ngay fab këyit wu tuutiw gàtt ndax dañuy bañ soo ci bindee alxuraan ji tuutaay ba tey tax manees na ko koo joggi ngir bañ koo seetlu wala ñu koy sàggane ndax jàpp ne day si bindul alxuraan moo tax da koy def këyit yoo xam ne daal bu tuuti lool bu gàtt lool na doon wu diggu duumu mu ne wa suklu maas ya xat ahdasu sos nañ ko wannu ak tomb ya siyaanatan ngir ñoŋal laxoo ñeel ko moom alxuraan ji minal lax ciy yàq fàqa dong xam nga ne alxuraan ba muy wàcc yonte bi mu wut ay bindkatam yoo xam ne ñoo ko daan bind booba kenn daawu ko maas kenn daawu ko wutal ay tomb waaye biñ demee ba nga xamee ne réewum jullit ñi yaatu na ñoo xam ne dañuy arab bokk nañ ci nga xam ne buñ ko tombul maas ko mën naa buñ ko bindee wala buñ ko jàngee danañ ko yàq moo tax ñu sos ay masque yoo xam ne ak i tomb yoo xam ne dañ koo jagleen alxuraan waaye xam nga ne ni ñuy bind alxuraan ak nañ koy maasee du bokk ak boo doon gis njàngum arab kese rek dañuy bëgg mu am maskay boppam ak tombiinu boppam ak mbindiinu boppam woo xam ne képp ku koy bind nga sàmmoonteeg moom ndax loola mooy tax ay yàq du ci am waaye suñ bàyyee li ñuy bind téere yëpp ñu bind ko ni kon ay yàq mën na caa tàbbi te doo ko seetlu moo tax alxuraan dafa am bindinu boppam ak maasinu boppam wakarion sig nañ tafriixoo ak tàqaleem ajsaan ay xaaj na sa yaxal na bii ci moom man ka nga xam ne jaa dikk na ko xan Malik jële ko ci imam Malik kon nett nañ jële ci imam Malik radiyallahu anhu mu ne sib nañ alxuraan ku koy def ay xaaj comme jamono ji li xew nga xam dangay gis kaamil boo xam ne ñaari isib yu ne ab xaaj lay doon wala juróomi isib yu ne ab xaaj wala ñu def ko ñeenti xaaj fukki isib ak juróom yu ne kon daal li bëgg mooy kaamil bi bu ko tàqalee boole ko mu nekk benn kaamil ndax li tax ñu koy bañ li xaw lii ngir waxam suñ boroom fii mag nii ca yaqub alxuraan subhaanoo yéem naa ak sellam ndax daane inna xale naa naka war nanu jam xaxoo dajale alxuraan ci sab xol yow muhammad quraanoo ak jàng ko ci saw làmmiñ ndax yonent bi sallallahu alayhi bu jibril masaan ñëw di ko wàcce alxuraan ci moom day gaaw di ko jàng di ko jàngaat di ko baral di ko répété ngir bañ koo fàtte alxuraan daal di ñëw ne naa inna alaynaa jam'ahu wa quraanahu fa izaa qara'naahu fattabi' quraanahu noonu dajale ko ci sa dënn ba saa boo ko bëggee jàng saw làmmiñ noonu la war kon nag baye boo nga ànd ci ak sa sago kon ñu ne dajale googu ñu wax ci aaya bi ci lañ sukkandikoo ba ne kon di ko tàqalee soo ko defee yaa ngi safaan li alxuraan wax kon da koy boole def ko benn kaamil lu dul boog bu dee donga buy jàng nga xam ne dañ koy jukki li ko jox nañ jukki jox ko waaye su jàngee ba noppi na ko ca dellowaat ñu daal di koy tëj te bañ ko defee xaaj tax daa dunaa sunug lim umoora sa tansiili mbiri jile alxuraan yuxrijunaa danañ génne ad daara diirub jamono ila di jëm ci guddal alxuraan ak yee suñ ko bëggee lim par benn par benn ba yépp jeex kon dana mujj danañ guddal guddal goo xam ne dana nu génn ci liñ naroon ndax téere bu gàtt bu yem boo xam ne day boole ay njariñ yu bari waaye am na yeneen téere yoo xam ne ci googu wàll dong la ñuy wax soo ci bëggee géeju mën ngaa dem ci yooye ndax lépp lu aju ci alxuraan wala la ci ëpp ñoom danañ ko wax kon nag fal naan sarif naan wëlbatiku ilaa nidraami maa jëm ci woy la nga xam ne saxaara feeñ na xunaa fii axaana naa yàlla na dimbalinu àllay ci moom sul xadar boroom dogal ba kon nag léegi nag ñu wëlbatiku way li nga xam ne moonu itteel fii rek tafaa doy na bis yi ci li leen doon leen waaye dan ay njariñ lil muktafi ñeel aji doylu kuy doylu nag kon lii lu ñu la jox ci ay njariñ mu aju ci alxuraan war nga ko mën a doyloo ku doyluwul nag demal seet yeneen téere yi nga xool la nga ca bëgg a dolli nga dolli ko jox kon nag léegi fal nasrif nañ wëlbati alxawla wax ja ila tasawuf jëm ci tasawuf kon boog léegi nañ wëlbatiku wax ci wàllu tasawuf mu ne fas mun lii ab dog la fi tasawuf ci tasawuf ama tasawufu ndaal tasawuf fa fardu aynin faratay jëmm la la daw xasaali fas imaamul xasaali bi dooni may ni ci dudu nar tasawuf buñ ko waxee mooy sellal sa xol bi ba lépp looy jëf yàllay kese tax nga sellal ko ngir jëmmi sa borom bi nga xam ne moo la ko sant loolu nag imaamu xasaal nee na bu fekkee noonu nga dégg tasawuf loolu fardu ayn lay doon nga xam ne jullit bu ne day war ci yow ndax xam nga ne jëf bu sellut wala nga boolee ci leneen lu dul yàlla doo ci am bu yool te lislaam dafa bëgg lépp looy jëf nga am ca bi yool kon sellal googee nga xam ne mooy tasawuf kon loolu fardu ayn lay doon arkaanu ay ponkam maarif danoon xam sabxatun juróom-ñaar tasawuf nag am na ay ponk ponk yi nag mën nañ leen ci limal juróom-ñaari ponk yoo xam daal képp kuy tudd tasawuf fopp nga tuddaale leen mooy suntan ak noppi wax jëpp joo xam ne daal amalu la njariñul diine amalu la njariñul àddina nga noppi ci bañ koo wax ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon man kaana yumin billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gën ne bis ji dana ñëw nay wax ak yiw te ne ci yàlla bañ caateeg lu dul noonu kon loolu bokk na ci ponk tasawuf wajoaan ak xiif boo xam ne xiif bu digg dóomu la waxuñu la xiif bu ëpp boo xam ne dangay xiif ba doo jóg mën a taxaw julli ndax dégg nga boroom bur du naan fa rubba maxmasatin charrun min ak tuxami bari xaana xiif boo xam ne moo yées duy sa biir bam fees ndax xiif ba xiif ba mënul taxaw julli duy sa biir ba mu fees te ngay julli julli bi ànd ak tàyyeel lu bon bon moo tax ne ba ñu julli wala xiif bu yam la ñu wax wajtinaabul biddaati ak teet biddaa lépp loo xam ne dëpp wut ak alxuraan dëpp wut ak sunna dañ koo sos bëgg koo boole ci diine ji te amul benn fondement ci diine nga fexe ba teet ko lu niiru niiru lu baax alxuraan moom nee na al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum al islaama diinan diine ji mat na lislaam mooy seen diine kon lépp loo andi lu mu niru niru lu rafet te gisoo ko ci alxuraan gisoo ko ci sunna xamal ne biddaa la te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na taraktu fiikum maa in tamassaktum bihi lan tadillu abadan kitaaballahi wa sunnati bàyyi naa leen loo wax ne su ngeen ci mayee du ngeen réer mukk mooy bi yàlla bi ak sama sunna mooy nam daan defee wala nam daan waxe yooyee kon ku ca dolli lu niru lu rafet te dëppoot ak yooyee loola mooy biddaa kon teet biddaa ci ponki tasawuf la bokk foo toll sax ci tuub diggante bàkkaar yi nga xam dafa dox sa diggante ak sa boroom ak bàkkaar yi nga xam dafa dox diggante sa jëm ak say moroom bu ko defee nag sarti tuub boo xoon li nga nekkoon ba koy tuub da koy daal di bàyyi ca saasa metti lu nekk gi nga ca nekkoon réccu ko fas yéene dootu ca dellu mukk bu dee sa diggante ak sa boroom bu dee diggante ak say moroom itam bu dee alal joo leen jëlaloon da nga leen koy delloo ba nag doog a tuub bu dee xas boo leen xasoon nga dem jéggulu leen bu ko defee yooyu bokk na ci ponki tasawuf muy tawbatu wa saxaroon ak fokk bañ a bari nelaw bu ëpp bu guddee nga jóg di naafi la wala ngay xalaat ci mbirum sa borom lu la mën a yokk leeru ngëm waaye fas yéene bu jant bi soo nga ne wàtt di nelaw ba jant bi fenk yee la kooka ku koy def boo dee wootik tasawuf itam te tasawu googee mënee su ko dëppaleeg alxuraan wala sunna waas latul akuk beru bul def fu ñaar nekk nga ñettee leen fu ñett nekk nga ñeentee leen fas yéene benn grand place lañ fay nettali du la umb ba noppi di wooteeg tasawuf ndax ñaare bari xaana jataay yoo xam ne boo fa demee ay bàkkaar dong nga fa jële ndax wax lu ñu wërta wax wala di jiw wala di fen wala di rambaaj di wala di wax loo xam ne amalu leen njariñu àddina amalu leen njariñu alax loolu dong lañ fay def kon nag ngay beru di daw jotaay yu demee noonu su ma istiqaamatun topp ak njub istiqaama mooy sax ci topp yàlla ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa moo tax mu ne amul moroom moom istiqaama xaslatan ci jikko wasaada dolli na sa sayxunaa sun sëriñ alyadaal yi ahmad yi daal yi dolli na ci juróom-ñaar yooyu saaminan bu juróom-ñetteel ahmad yi daal yi ponkite so moom yokk na ci boo xam ne nee na mooy bu juróom-ñetteel bi waaye daanaka bi mu ci yokk boo ko xoolee làmbaale na yi ñu waxoon yépp ndax mooy taqwallaahi ragal yàlla zaahiran ci saahir ubaat ak nubb li ngay feeñal nit ñi di ko gis ak la ngay def nit ñi gisu ko na nga ca sàmmonteeg ndigalil sa boroom di ca wattandiku te rek sa boroom loolu mooy ragal yàlla lépp looy def daal jëmm yàlla tax loolu mooy ragal yàlla kon nee na ci ponk yi la bokk mu ne wata jibu dana war nag al onslatu beru in xaafa njeem ragal na alfataa sa xalaa fasaadi diini ci yàquk diineem in sabat njeem sax na aw daxala wala ñu tàbbi fii fitnatin ci fitna xat saxarat yoo xam diis na xan dafiya walif ak jiñam wanaatem lot ber nag mi ngi war nit ki bu fekkee dafa ragal ne bu jaxasoo mbooloo mi diineem dana yàqu ndax fa ñuy jaxasoo ay mooy yàlla doo